génn réew mi xam nga saa yu ne ëpp mu daw waaye beneen yoon comme am na confiance jàpp na rek toj nañ oto Ousmane Sonko jàpp nañ ko yóbbu këram far force day jàpp beneen yoon loolu mën naa bu boobaa nag yàllaa koy xiir mu toog ci réew mi yàlla toroxal ko wallahi lazim kii bu amee mujj rafet wallahi lazim dana ma bett du ko am te yéenewuma kooku tamit asalaamaaleykum mbokku internetu IYAT TV ñi ngi leen di nuyu niñ koy defee jamono bu nekk ànd ak yéen ci euh, li nga xam ne moom mooy waxtaanu réew mi waxtaanu euh, li nga xam ne mooy pénc mi ñu ci ànd ak euh, ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu am xam-xamu politique waaye tamit xam ni réew mi doxee di ci di ko bàyyi xel jamono bu nekk ñu ànd ak euh, oustaz euh, Abdoul Khadim Sarr ngeen miin ko lool fii ci tv ci ay waxtaan yu am solo yu mu fiy def euh, dañ koy nuyu di ko bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu dugg ci waxtaan auzu billahi min ashaytaani rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Serigne Fall ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokki Sénégal yi nga xam ne ñu ngi topp seen bii di IATV yëpp rek di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom di ñaan yàlla def ci Sénégal sunu réew ak réew yu ko wër yëpp yàlla def ci jàmm. jërëjëf euh, Oustaz euh, dañuy ñëw ak yow rek ci li nga xam ne mooy actualité nationale di ci jiital euh, wuy ji Ousmane Sonko procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang sax laay wax balaa ñoo dugg ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe am ci yoon bi naka nga gisee procès Ousmane Sonko Mame Mbaye waaw kay jërëjëf Serigne Fallou li ma yàgg wax ne Sénégal daa du daa nekkul am réew parce que bu fekkente ne dañoo dem ba ci am réew ab sàcc di porte plainte kon booba réew moom xam nañ ne du réew lima ma yàgg wax ne Sénégal nag amul justice mais justice la am parce que itam rapport boobu nga xam ne moom la Mame Mbaye Niang di toppe eh, président Ousmane Sonko ba ne eh, dañ koo sosal wala da koo tuumaal rapport boobu Ousmane Sonko moom néewut ne Mame Mbaye Niang sax dafa sàcc moom daf ne impingré nañ ko impingré nag buñ ko waxee mooy am na luñ la tuumaal te sëtagoo ca feeg sëtagoo rek dañ laa impingré maanaam xel ñaaw na ci yow kon yaakaar naa loolu la ko Ousmane Sonko wax tey itam moo ko mujjee wax nag ndax ki nga xam ne day wax tubaab yi dañuy wax ne wax day naaw mais bind day des ki ci bind livre muy Birahim Seck da cee bind livre da cee bind livre comme da cee bind livre nag porté wut pelante kooko ndax kooka amul jubluwaayu politique kii nga xam ne nag ndaw ñi dañoo am ci moom yaakaar réew mi am ci moom yaakaar ndax bu njëkk kat ay gone doo nga àndoon moom. ñu naan daa violence daa def nii daa def naa mu jàgg ñu dem ba dégg ñu ne magi Pastef nga xam ne ay mag ñëw nañ kon ànd ak moom. kon yaakaar naa ne seetawaaye bu ne am nga droit ci bu la yoon woowee nga seetu yoon woy jaar jaar fa kooku kenn ku ne am nga ci droit mais sa ñoo woo ba pare di ko sàkkal yoon wu muy jaar wu mu jaar. muy benn ñaareel bi itam mooy Ousmane Sonko ni mu nekkee citoyen Sénégal noonu la ko Mame Mbaye Niang nekke lan moo tax Mame Mbaye Niang moom muy dem ñu bàyyi ko mu dem librement nga xam ne saa yu ñu wootee rek moo fay jëkk dafa mel ne bés bi Ousmane Sonko am nag moom lay tiitaroo moo tax sax mu dugg ci yii ndax ndax temps yi yëpp ñu ngi koy tudd te amul woon benn njariñ kenn dawu ko tudd kenn faalewu ko woon sax boo waxee ñu ne ab sàcc la rek mbay Prodac loolu rek lañ ko daan wax léegi ne bi mu duggee ci Ousmane Sonko la tàmbalee am bés waaye bësam bi fa mu mujj dey dana mujj doon coono ci moom parce que li mu nekk du dëgg hmm. beneen bi ci des itam mooy moom dañ koo bàyyi mu dem wuyu ji ñibbi waat ci jàmm ak salaam hmm. Ousmane Sonko ñu ne ñu nekk di ko escorté di ko indil ay problème ba dugal oto niir wi ci seen biir hmm. xam nga Sénégal boo dee xool maanaam kii kii nga xam ne moo jiite réew mi daa nawlawut sax suñ takk deer yi ndax bu leen nawla woon du jël ay nervi di leen dugal ci biir police parce que loolu itam mbir mu garaaw a garaaw a garaaw la parce que képp koo xam ne da ngaa nekk ci sa réew muy président bi am nañ ay ñoo xam ne dañ leen a former ba pare itam di leen fay ci xa impôt yi nga xam ne moom la nit ñi di fay su ko defee ñu di leen ca fay kon ñëpp lañ fa war a nekkal waaye dañoo gis ne Ousmane Sonko ñi doon dajee ak moom jëfi bëndi leen jëf bu fekkente ne am na ñoo xam ne ñoom ñëpp da jàpp nañ ne ay police lañ wala leneen ak leneen am na ca ñu ca rax ñoo xam ne bokkuñu ca wala bu dee kenn raxu ca it jëf nañ jëfi bandi ndax tamit euh, li nga xam ne moom mooy euh, caravane bi Ousmane ko defoon mooy bi bi mu jógee foofu mën nañ ko mën nañ ko bañ a sax tudde caravane parce que da doon ñibbi ful bi topp ko est que tamit loolu rek waroon naa tax ñu ciy nekk di sànni ay grenade ak yooyu noonu duñ ko escorter mu ñibbi te euh, nekk waaw xam nga mooy li ma doon wax sànq rek gis nga euh, président africain yi maanaam di leen jaay ay ngànnaay xanaa nga umpale ko sax bañ leen a xam ndax réew mi ne day xool intérêt euh, sanq am naa ko ci doon waxal ku ñuy wax defe naa Serigne Saalihu euh, jëpp ma santam waaye bi may wax naan Erdogan ci boppam am ñu am ñu ne dafa jël ay grenade ak i ngànnaay jox ko soxna Batoor dama ne leen loolu waruñu ko war a def man loolu mere naa ko ci. parce que itam ngànnaay yi mu jël di ko xeexale aw askanam maanaam. ngànnaay bu fekkee danga koo am danga nga koy défendre sa réew loolu tax a tax ñu créer militaire parce que bu beneen réew jógee jëm si ci yow nga mën a am kàttan goo ko défendre xam nga lislaam sax day wax ne jumaa kenn amul sañ di ko tabax ci ab dëkk lu dul ne rek danañ mën a défendre seen bopp bu beneen réew jógoon bëgg daal seen kaw wala beneen dëkk jóge bëgg a seen kaw faw ñu am ñoo xam ne danañ mën seen bopp dëkk booba bu boobaa booba la fa jumaa di doog a war suñ ko amee ba pare nag su boobaa nag fukki nit ak ñaar moom buñ ko amee ah su boobaa mën mën nañ jee julli jumaa waaye li fekk loolu amut mënuñoo défendre seen bopp su boobaa moom sañu ñoo tabax jumaa rawatina kon am réew kon buñ créé ay militaire dañoo bëgg ñoom ñu taxawu dëkk ba ba nga xam ne beneen réew bu jóge feneen ñu am gàndaay ñu ko mën a défendre looloo waral ñuy jënd ay gàndaay looloo waral tamit ñu wut ay militaire ba nga xam ne beneen réew bëggoon a ñëw daal ci seenum réew ñu mën a jóg défendre leen Sénégal nag moom ngay gis ñuy jënd ay arme ngir lan xeex seen peuple waaye li may faral di wax mooy gis nga peuple bu déterminé wu kenn amul garabam kenn amul gàllaajam te irhamu man fil ardi irhamukum man fis samaa'i sunu borom subhanahu wa taala yonente bi aleyhi salaam suuf bu ko defee ki ci kaw yërëm leen yàlla nag ne ci kaw la ne wala ci suuf la ne wala bërëb sànga waaye waxiin la ndax yàlla moom lépp a nekk fi moom lépp a teewandoo ci kanamam waaye boo yërëmee ñi nga yilif rek yàlla ci boppam daal di wàcce yërmande ci yow benn beneen bi ci des tam mooy saa yoo amee yërmande ci saw askan yàlla mën naa roof ci ñoom tiitaange ba nga xam ne duñ la ñeme ñeme gañ la war a ñeme waaye saa yoo dëkkee di leen fitnaan suñ borom nee na danaa roof ci ñoom aw fit ba nga xam ne dañuy am détermination boo xam ne bis boo jógee ba dal ci seen kaw buñu yàllaa leen di fital yàllaa leen di dooleel bu buñ dalee sa kaw rek nga yàqu moo tax bépp président boo xam ne daa mas a installé ak dictature xoolal fa mujje xoolal rek fa mujje te yonente bi alayhi salaam suñ borom dana ko woon sanul xii fii xulubi lazina kafaru ruuba xam nga yéefar yi buñ daan tooñ yonente bi alayhi salaam muy muñ di muñ di muñ bis dafa ñëw nag suñ borom ne ko usine lisine yu xaatanu baanum zurimu way na laalaa nasrum la xadir léegi nag fay jot na moo tax gis nga mbir du ñëw rek nga réglé ko ci sensé soo ko defee rek mën ngaa daanu waaye bi leen borom seetaanee ba nga xam ne jàpp seetaan sax eh, maanaam jàpp nañ ne daa seetaan laay wax waaye yàlla moom du seetaan dara waaye ba mbir ma demee ba war a saafarawu dañoo bocc seen i jeesi xeex ba jàmm am dëgg taxaw xam nga boo dee xool Sénégal maanaam gis nga dippi ñetti at yi ñeenti at wala nga ne douze ans yii wala onze ans yii fitnaan Sénégal yi fitnaal boo xam ne dana am fu mu yem de faaw mu am fu mu yem nag te su boobaa nag yaakaar naa ki soo ko woon mbir mi dana ca bëgg a mucc te du ci mucc benn bu njëkk ba ne woon mars 2021 dañ leen a bett loolu la ñu waxoon 2023 ñu woo Ousmane Sonko Ousmane Sonko daan yéen ndaw ñi ni ngeen ñëw ci tribunal ba ndax sénégale bu ne am nga ci droit léegi dem nañ ci tribunal ba waaye nag jàmm ak salaam xam nga moom noonu la ko jàppee ndekete gars yi nas nañ ay pexe parce que li tax ñu nas si pexe mooy dañoo ndax ndaw ñi ndaw ñi dañoo yaakaaroon na jàmm rek lañ fi fekk ñoom itam dañoo bettaan ndaw waaye nag bis bu ñu dajeewaatee cooki fee lay doon li tax muy doon ko cooki fee mooy du ma ne sax euh, maanaam ñaari cas mais takk yi ci boppam gettaru nañ ne li fi amoon du fi amati man loolu laay wax ndax wax kii wax amul fit ay ñooñam amuñu aw fit waaye takk deer yi nga xam ne ñëpp ko bokk ci ñooñu la ñu wu waaye kon takk der yi getaru nañ léegi waa Pastef ñoom itam getaru nañ te kenn ku ci nekk yaa ngi tëkk sa bokk sa sa morom. waa ci ci kaw loolu ma yaa ngi wax léegi euh, bett giñ bett ndaw ñi am na ñu wax ne euh, am na ñoo xam ne gis nañu ne jàpp gi ñu jàpp Ousmane Sonko dugal ko seen oto yóbbu ko këram euh, am na ay patriotes yu ko def defet est-ce que loolu defet la pour ñoom tamit. waaw xam nga man sax. maa ngi doon wax ne ndaw ñi jàmbaar lañ waaye ful bi nga xam ne ñoo ñoo daroon Ousmane Sonko ah. ñoo waroon am détermination bu raw bi Mbàkke amoon waa Mbàkke détermination bi amoon ñoom bu ko raw lañ waroon am ah. gis nga buñ ko defoon duñ ko mas a toj otom waaye gis nañ ne comme sànni nañ grenade lacrymogène rek euh, ful bi tasaaroo ñu dal ci kawam parce que xam nga ne ki toj weeru euh, euh, oto Sonko dafa mel ne ku amoon yéene ko ndax bi mu duuree weer bi weer bi mënoon naa dal ci bëtam yàq bëtam loolu jëfi bandi la ba ba pare itam mooy boo gisee mel ne ndaw ñi dañu leen a nax mooy ñoom bi ni ñëw dañoo indi jàmm yoruñu ngànnaay yoruñu dara préparé wuñ dara jàpp ne jàmm rek am kon euh, dama doon wax ne ñoom dañoo xaw a yaafu ci benn côté donte nag ay jàmbaar lañu waaye na xëy na xel moom day fattu léeg-léeg waaye bañ sànnee kii bi ñu dem jàpp ne ñenn ñi sax biñ biñ ñëw audience bi renvoyé nañ ko mm-hmm. ñenn ñi dañoo dem ñibbi waaw yaa ngi dégg bu ko defee la fa desoon ànd ak moom di ko gunge ji loola moom mbooloo mu baree bari la xajuñu ci ñoom su fekkonte ne ñoom jàppoon na ne leneen day am yaakaar naa danañ ko teel a hmm. waaye comme dañ ne 2021 euh, dañ leen a bett. 2023 ñu bett ndaw ñi ñoom itam. bu ñu dajawaat kenn ku ne jël nga say matuwaay. moo tax gis nga réew mii dañuy dem ba tollu foo xam ne sax kilifa diine gu ci waxati da nga yeblu sa bopp ndax duñ la faale. da ngay dem ba boo waxee sax dañuy yeblu sa bopp xam nga sànq maa ngi koy wax ci benn kii maa ngi naan baax baax yi soxna Batoor ku ko wax sax nit ñi mere la. waxuma la nga di ko xas nga koy tàgg de waaye ay baax baaxam def na fi lii def na fi laa rek soo ko defee sax nit ñi la parce que moom yàlla daa rocc ci moom barke barke moom da koo sori carrément parce que nit bu fekkee yàlla daf laa defal taraanga da nga ko war a sant la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid suñ borom nee na de ku sant ma dooli la waaye na ku weddi sama xéewal ah mbugal mi dee ngi fi tege digagu ko kenn nag néewagut kenn yaa ko moom de waaye képp koo xam ne gis nañ la rek yàlla defal la taraanga mooy lan mooy yàlla dalaa fekkoon ngay luwee sab dépasse matut ñu jël la dugal la ci biir nguur ndax nee nañ sax Farba Ngom moo ko booleeg Ablaye Wade xam nga Ablaye Wade moom borom yërmande la. léegi nag Ablaye Wade jël ko taf ko ci wetam. dénk ko ministère bu ne mu jox ko ko ba gis nga bi ñu ko dénkee ministre l'intérieur sax dafa mel ni tiit ndax ñi muy takk der. Mhm. waaye gis nga ko bi mu demee ba jóge ci taraanga yu yëpp yàlla defal ko ko. te xam nga moo ko Ablaye Wade ñoo ànd juróom-ñetti at di ko noos. bi mu demee ba génn ci nguur gi ñetti at. waaw yëpp euh, am ci moom ñeewant am ci moom yërmande ngir lan injustice guñ ko doon teg Hmm. bi nga xamee ne dem nañ ba fal ko nag au lieu que mu sant yàlla ci li ko yàlla defal delloo sénégalais yu njukkal euh, wan leen na kat yéen maa leen di liggéeyal waaye deful loola de daa jël ngànnaay yi nga xam ne doole ji ko sénégalais yi jox mu wëlbati ko di ko xeexawaat askanam hmm. loolu la mujj di def loolu mooy ñekk a sant yàlla waaye nag euh, nañ ñaan yàlla gudd fan waaye kii di bu amee mujj rafet lu ma bett lay doon ndax gis nga euh, keroog maa ngi ko doon wax jamono yee passé maa ngi ko wax ci benn site nee naa leen nguuru Firawna ak nguur gi giif giif benn lañ benn lañ hmm. parce que ko ku gis ni muy doxale xam nga Firawna daraan def képp koo xam ne nar nga ko gàllankoor mu éliminer la kii tamit noonu lay def képp ku ko bëgga gàllankoor mu ne dala éliminer waaye nag sénégalais yi fi ne dañooy yeewu hmm. te itam 2024 bu nu fi yàlla bàyyi jàmm sénégalais yi ëpp ci sénégalais yi jàpp nañ ne Ousmane moo mën a yor réew mi parce que réew mi daa war a changé hmm. réew mi ci boppam dafa war a changé te itam waxuma sax Sénégal rek waaye africain yi ci boppam ñoo pare pour jëlaat seen téye ko seen loxo Ousmane Sonko bi ñu jël def ko euh, résidence surveillée ci réew moo xam ne ñu ngi wax ne réewum euh, réewum démocratie la euh, est-ce que du li ñuy yuuxu jamono bu nekk naan recul démocratie moo feeñaat foofu tamit. waaw xam nga démocratie moom mës sa am Sénégal 100 pour cent parce que réew yi nga xam ne démocratie am na fa. ñoom mm-hmm. dañuy maye liberté doomu aadama waaye xam nga Sénégal li may faral di wax ne fas wu dëkk France. ci la sun président yi gën a respecté nit ku dëkk Sénégal. parce que faaliwuñ ne teguñu leen fenn. xam nga yow bu fekkente ne nit ki dangay jël ay gaz lacrymogène di leen ko sànni te gisoo leen lu ko jar. xam nga bu fekkonte ne da ngaa gis débordement boo xam ne jiggi na dayo ba nga yaakaar ne mën nga caa loroo nga sànni waaye ñoom dañuy gis ful bu ful bu dajaloo rek ànd ak Ousmane Sonko ànd gi mu ànd ak Ousmane Sonko naqari leen rek xam nga hmm. keroog bi ñuy bi ñuy tiir ay gaz lacrymogène lu ko fa jar ni ku fa woon parce que gis nañ Ousmane mi ngi dem ci yar ak teggin hmm. lan moo fi jar di jël ay grenade lacrymogène di ko tiire ci kaw ndaw loola moo di ak bon te gis nga bépp réew bu roy say ndaw danga nga des ak say màggat te fekk jeexal nañu boo gisee yenn réew yi ci bare bare léeg-léeg ñuy accordé di maye ay kii yoo xam ne dañuy bëgg nit ñi ñëw fa mooy ay mag lañu ay mag lañ dese manqué ay ndaw ndax réew moo xam ne léeg-léeg benn jabar lañ naan moom ngay takk te boo ca amee ñaari doom mu jeex léegi nag bu yàggee réew moom day dem ba day manqué ay ndaw ñun nag suñu borom dañoo may ñu am ay ndaw ndax 65 pour cent ci population bi ay ndaw lañu hmm. kon manqué wuñu dara yàlla defal nañu lépp waaye nag gis nga résultat surveillant yi boobu nga xam dañ ko bëgg a def Ousmane Sonko wala dañ ko koy def loolu moom mi ngi aju mi ngi dépendre ci askan wi. dañu gis ne démb euh, bi mu jógee tribunal ba euh, ci la fa këram lañ nekk ba ñu barki démb bokk këram lañ nekk ba ñu xëyaat suba ci 10 heures lañ fay soo a jógee. donc Ousmane Sonko sax wax na ne moom dafa nekk en état euh, boo xam ne ñi ngi mi ngi nekk këram ci sous surveillance de la police wala des force de l'ordre te siis waroon ko waroon waroon ko ko notifier te defu ko. waaw kon euh, résidence surveillée de manière illégale. waaw xam nga bu fekkente ne réew mu am yoon ngay wax mais Sénégal li ma waxoon nee naa la justice amu fi justice moo fi am. parce que Ousmane Sonko dara ji di ko yàlla may ci réew mi wërta am benn yoon kenn di am sañ-sañu di ko def résidence surveillée xam nga euh, conférence de presse bi mu bëggoon def xam nga dañ koo tere waaye bàyyi nañ waa APR di ko def. xam nga dèjà kon li naan am réew amu fi mooy lu mel noonu. parce que Ousmane Sonko am na droit fépp fu mu bëgg a dem dem fa te buñ ne dañ koy def résidence surveillée lan fan lañ ko teg Ousmane Sonko daa yor këram daa war a liggéey di jox njabootam ñuy dund. dèjà loolu farata la maanaam dundal sa njaboot farata la léegi buñ ne dañ koy def résidence surveillée ba bañ mu génn léegi li muy dundee la njabootam fan lay jege fan la koy jële kon xam nga réew mi ci boppam maanaam gis nga est-ce situation bi bi ñu nekkoon barki démb waral lool rek. situation bi fi am barki démb takk der yeeku fi nekkul loo xam ne lu continuer la tamit diggante bu gàtt la tamit. maanaam diggante bu gàtt ak bu gudd ci bokk yam maanaam dañoo amul Ousmane Sonko dafa am àq ci réew parce que dafay dëkk bokk fi am fi àq kon kenn amul sañ-sañu di ko def résidence surveillée parce que diful dara di fu dara ndax bu amul benn dossier boo xam ne jaar na ci yoon ñu di ko topp Ousmane Sonko amul bu dee mbirum Adji Sarr moom tëddee na boor sax daanaka ndax ñoom xam nañ ne liñ doon wax ay kàcc la ay fen la xam nañ ne dara du ci dëgg bëgg nañ ko installé ci bopp sénégalais yi mais sénégalais yi ne leen lii moom bind la boo xam ne duñ ko mokkal mukk ñu xam ne foofa jeex na ñu ne kon nañ ko làmbitu fii ab sàcc naka lay porte plainte ab sàcc bu demee bay porte plainte booba réew kay nekkatul réew tey dañ koo gemb rek nag fii du am am bay tala kii xam nga ba mu jógee ba mu ñëwee këram ma nga ànd ak xaw ma soxnaam la xaw ma am benn jigéen bu nekk ci wetam mu mel ne kuy kokkori sénégalais yi hmm. naan dama yaakaar day indi rapport loolu du ay wax maanaam dama yaakaar ne day indi rapport parce que su fekkente ne ñoom Ousmane Sonko ko leen na waxal ne dafa waxal Mame bay Niang ne ko dañ laa impingale ba tey ne ko ko sàcc nga sax sénégalais yi kay ñoo naan sàcc nga waaye ba tey néewa ko ko sàcc nga def na ko dañ laa impingale maanaam tuumaal nañ la hmm. tuumaal nañ la nag moom da balaa porte plainte lan moo taxoon mu tekki ndombal tànkam démissionné wu doon hmm. lan moo tax tamit Amadou Ba génnoon wax ci Amadou Ba wax na ci hmm. euh, Pape Malick Ndour su ma juum daa mel ne wax na ci léegi ñoom ñëpp naka lañ ciy waxe mu wëlbati ko naan day porte parole de Ousmane Sonko. loolu fan la tegu moom sax mu wax ci moom ci boppam. waaw moom sax wax wax na ci. moom dëggal dëggal na ne rapport bu am la moom ci boppam. xam nga dégg ñu naan rapport bi daa daa fiyute. lu fiyute kay am na ndax bu amuloon du fiyute. effectivement kon kay moom ci jëmmi boppam moo war a jéem a leeral wér 9 milliards yi ñu ko joxoon fan la ko dugal. Hmm. fan la ko dugal loolu la war a jéem a leeral ba noppi. Hmm. li may wax ne dañoo nekkul ci réew waaye bu ñu nekkoon ci réew mu normal moom nëgëri ca kaso wala koy fekk. kon du fi tala nekk naan day lijjanti ay dara waaye gis nga ñàkk a yorum réew mooy dañuy jàpp nit ba pare dem di wuti ay preuve euh, Hannibal Djim min jàpp bu yàggut luñ koy toppe ana lan lañ ko war a mën a toppee hmm. yow koo xam ne dana cëpp Sénégal nga ne ko ratt ci kaso bi mais loolu fan la tegu mooy am réew omu fi maanaam gis nga ñi nu jiite hmm. maanaam nekkut euh, maanaam nekkut réew moo xam ne dañ naan ay nit yu sérieux ñoon jiite déedéet ñi nu jiite sérieux wuñu hmm. parce que ñoom xamuñu loi ñoom seen bakkan lañ xam te képp koo xam ne bakkanam lay jëfe nag dana dana dana jëf lu ko naqari parce que Sëñ Tuubaa nee na lépp loo gis mu ron nga jàpp ne biscuit la ba nga seex ko da nga sex loo xam ne nag du doon biscuit te ñoom nag ci la ci la ñu nekk de parce que jàpp nañ ne rek fu ñu bës mu nooy dañoo war a jàll fépp fu ñu bés mu nooy rek ñu jàll waaye ñoom xamuñu loi respecté wuñ loi parce que itam am na ci yenn jàpp yoo xam ne wax dëgg yàlla tegul fen jàpp ay mineur rek ñu ne nga jàpp def ci kaso bi te boo xoolee kaso bi diggante ñaari at yi daanaka waa passif rek a ci nekk ñu bokk Pastef rek ñoo fa nekk wuuteeg wuuteeg njiitu réew mi xalaat. cent et quelques personnes yoo xam waaw xam nga loolu jaaduwut léegi boo ko defee ëllëg nga defaat ko defaat ko mel na ku dul jeexal te yow da ngaa ragal kaso ba biñ la ci bëggee dugal da ngaa dem wallu ji ñaan dimbal ñu dimbali la ba nga xam ne duggoo kaso. Hmm. waaye bu fekkonte ne duggoon na kaso yaakaar na waaye moom day daa soxor moom daanaka lu ne mën naa tiim nii sax di ko rendi di reetaan ndax xol bee baaxul. Hmm. ba tey dañuy des ci li nga xam ne mooy Euh, mbiru mbay Mbaye gis nañ ñoom bi ñu fa jógee yaa ngi wax léegi seen conférence de presse mais gis nañ conférence de presse boo xam ne ay ministre ñoo fa toog ci loo xam ne nee nañ ñaari citoyen la euh, euh, ça n'a rien à voir ak politique ñaari mini ñaari ministre wala sax ay ministre yu nekk fa kenn ku ne jël kàddu di félicité ñu mel ni ñuy ñuy ñuy def seen bumbaay daal est-ce que tamit loo loolu waroon a mën a nekk la ba tey ci état de droit. waaw ñooñu moom ñàkk ñoom dong la ñu def parce que bu fekkente ne da ngaa gis ab sàcc. di ko jéem a dooleel yàgg moo yem ñàkk jom dong la ñu seen conférence de presse bi moom kenn nëwu leen ci xanaa du xam nga li may faral di rek képp koo xam am nga xol buy dund nguur gi lii muy def naqari na la même am na sax ñu maanaam nit yi sérieux xanaa xamoo ne nit ñi nga xam ne dañoo sérieux sérieux te nekk ci groupe whatsapp yi sax boo ko APR sax ñoom dañuy naqarlu mbir yi nga xam ne mi ngi xew senegal hmm. am na ci ñu bari ñoo xam ne dañ dañ koo naqarlu moo lay xamal ne gis nga Sénégal su fekkente ne tey ki nga xam ne dafa tooñ moom lañ moom la ñuy jox doole moom la ñuy jàppale. kon xam nga euh, réew mi yàqu na. parce que koo xam ne dafa dem sàcc. ñu di ko tuumaal ak sàcc. journaliste si wax ko ba sonn. Birahim Seck bind ci livre. moom bu fekkonte ne daf koy weddit kon Birahim Seck lay jëkk a porte plainte waaye moom bu fekkente ne Birahim sekk moom livre baa ngi fi ba tey. nit ñaa ngi koy jàng. di xam li ci nekk moom moo war a génn daal ne ah man kat liñ may tuumaal bërëb sangam ak bërëb sàngam bërëb sàngam laa ko dugal indi ay kayit yu leer nañ soo boobaa képp ko ko waxati dara ñu porté la plainte waaye moom ba mbir mi daa leeragul mm. mbir mi dafa léeragul te 29 milliards nag du 29 mill de xaalis bu bare baree baree bari la kon nag bu fekkente ne da koo jaarale fu léerut na ko leeral ba noppi waaye nag loolu lépp nag moo njiitu réew mi ànd parce que njiitu réew ma bu fekkee def na Abdoulaye Wade da koo may juróom-ñetti milliards Abdoulaye Wade dina mayu ko ko kon moom moo leen yoon wax moo leen xamal ne kat lu ma leen dénk lu ne su leen neexee def leen ci nii waaye nag politigal leen ma moom intérêt réew mi ñuru ko ci boppam rek la nekk nag waaye nag lépp loo xam ne waaye def na ko ci lu bon wallahi laasim ci sa bopp lay këpp te bu amee bu fekkente ne yor na réew mi ba wàcc ci jàmm ak salaam mm-hmm. loola may bett de waaye mu ñàkk ko yor ba àgg loola moom du ma bett waaw dañuy des ci li nga xam ne moom mooy élection yi nga xam ne jàpp nañ date bi 25 février bii di ñëw mu mel 10 mois la kon euh, dix mois bokk euh, euh, élection yooyu jamono bi dañuy gis ne euh, lu jamono yi gën a ndox ak projet yi nga xam ne mi ngi dal ci kaw Ousmane Sonko ci wàllum yoon est-ce que tamit mën nañ xalaat ne ñoom seeni pexe bu jibee Ousmane Sonko dina bokk ci yooyee élection waaw kay jërëjëf sëñ Fallou gis nga sëñ Fallou maanaam doole peuple moo ko yore te peuple bi Ousmane Sonko lañ tànn mooy seen candidat gis nga seen tappale yi ñuy def maanaam amul benn verdict bu ñu mën a génnee ba ne Ousmane Sonko du bokk Sénégalais di ko accepté kenn du leen tànnal président kenn kenn kenn amul kenn ko am maqaama ne kii laa fi teg moo fiy ne. gis nga nag moom li lay xamal ne ragal la daan nañ ko def di ko réussir de. ah daan nañ ñu ah, bii de. bañ ko defee ci Abdou Karim Wade réussir na de. ñu def ko ci Khalifa Babacar Sall réussir na de. waaye biñ ko bëggee ci Ousmane Sonko mënuñ ko. li tax réussiruñ mooy Ousmane tey du nekk ci mbedd yi di dox kon kay réussiruñ gis nga fi mu ne nii. am na am na ñuy wax ñu xam droit ne nañ projet bii moom euh, bu ci Ousmane Sonko génn ci mooy moo leen di jaaxal moom mais du mu mu mu ñàkk cee génn ñu éliminer ko daal moom du leen jaaxal. waaw gis nga sëñ Fall mooy li wax léegi rek gis nga peuple moo yore doole. gis nga peuple bi moom bu fekkente ne déterminé bi nekk ci ñoom mi ngi ci ba tey boo xam ne bu ñuy jàpp Ousmane Sonko dóor la lacrymogène nga daw ñooñu est-ce que mën ah, dañ leen a bett rek xale yi xaw naa leen a mere tuuti nag waaye jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ xaw naa leen a mere tuuti nag ndax keroog la am mënoon naa bañ am. bu doon bawal gii la xewee danañ xam ne bawal moom fàkk tëdd fàkk tëdd la. bawal bawal yi moom duñu daw mukk ci loo xam ne dëgg la bu ñuy défendre dëgg duñ daw mukk. kon boo gisee loolu ma a am maanaam déterminé wu moo tax gis nga Ousmane Sonko ñu bàyyi ko muy dox ba tey jii ñemewuñ ko jàpp bëgg nañ ko jàpp de waaye ñemewuñ ko. parce que lan la mooy peuple moo yore doole gis nga takk dér yi nga xam ne gars yi dañ leen a yaakaar wéeru ci seen ginnaaw léegi tey bu ñu demee ba ne Ousmane Sonko du bokk te sax du mën a am waaye bu ñu ne woon du bokk rek bañ génn askan wi génn ne day bokk for force gis nga takk der boo xam ne dóor nga ci nit wala nga rey ci nit bañ identifier la am nga problème xam nga lu tax mooy koo xam ne day jeexal te yow bi muy ñëw fi la la fekk. Mm. xanaa doo nangu nag di ko tayle sa adduna. parce que doo nangoo di def loo xam ne dañ lay tëj sa giiru dund nga perte te moom day dem yoram. Mm. kon loolu yaakaar naa takk der yi war nañ cee bàyyi xel. tey tam takk deer yu baree na bari nag anduñu si lii de parce que xam nañ ne lii jëfi bandi la jëfi mm. banditisme dong la jëfi caay-caay la mm. ñu bare bari anduñu si ñi nga xam ne dañu leen a jàngal former leen ngir ñu aar seenu askan duñ jàpp ay nit di leen dóor ay bari fetal mm. waaye li ma waxoon keroog ne régal boo gis am na exception am na ci ñoo xam ne loxo bu gudd rek moo leen dugal ci mbir loxo bu gudd moo leen di dugal ci mbir ñooña moom xëy na mën nañoo topp bëgg-bëggi ña leen fa teg waaye nag li ëpp ci ñoom tañ defal leen formation bu baax ñooñu moom duñ jël ay bal mukk di ko dóor ci kaw nit ci loo xam ne nag du dëgg te mbir mii ñëpp xam ne du dëgg bu dee mbirum Adji Sarr kenn mënu ko cee condamné ndax sénégalais yëpp xam nañ ne lii du dëgg ku ko bëgg def sa bakkan mu ngi ci xottu gerte beneen bi ci des itam mooy Ousmane Sonko du bokk élection ci dossier Mame Mbaye Niang bii loolu mënta ne xam nga ah. mooy Mame Mbaye Niang ci ëpp ci sénégalais yi boo waxee ñu ne sàcc la kon hmm. kooku moom yaakaar naa benn dossier bu muy andi bañ naan dañu ci condamné Ousmane Sonko mënta ne hmm. beneen bi ci des itam mooy maanaam loi boobu nañ ko dugale daa jaaduwut du yoon parce que biñ koy dugal dafa am ñu manqué am na ko génn àdduna am na ñaar ñoo xam ne ñoom seen seen kii mat na seen app mat na dañ faa war a jóge mu des kaat dañ ko war a mottali ba mat juróom-ñaar ñu doog a dugali luwaa waaye bàyyi fa ñeenti nit gaaw parax parax yi di fa dugalub luwaa waa boobu kontut kenn du ko jàpp kenn du ko compté kon réew euh, te réew mu toll ne Sénégal ñu dem ba am président bu mel ne Ousmane Sonko ñu daal ne du bokk ay élection ah, loolu de moom adduna bi sax mënuñ koo nangu nag am na borom xam-xam yu waxoon ne bi ñu éliminer Ousmane Sonko ci seen liste législative bi ñu ne essayage la pour 2024 buñ ko éliminer mu jàll te réew mi yëngu dara xewut 2024 dinañ ko jéem a dinañ ko jéem a dóoraat est-ce que du boobu mooy ñëw di répété wu est-ce que du woon nañ ko mu neex léegi dañuy dañuy jéem a appliqué kon. waaw loolu mooy li ma doon wax léegi. gis nga yàlla bu la naree toroxal. waaw da lay yaakaarloo ba nga am yaakaar. Hmm. su ko defee da ngay yaakaar xam nga fi mu ne nii. askan wi dañoo dalal ci kaw askan wi échec. Hmm. ñu ñëw dalaat ci kaw askan wi léegi nag bu ëllëgee beneen yoon soxna Bator du génn réew mi ndax day am yaakaar am confiance ci arme bi mu fi teg hmm. léegi nag su ko defee ci biir réew mi la koy fekk de mu daan ne dal ci kawam éliminer ko diw su boobaa nag ci la ñuy xam ne nag yàlla kartan yàlla rek ko am annal quwwata lillahi jami'an hmm. wa anna laa shadidul azab maanaam kartan ci boppam yàlla dong ko am te gis bu lay jox dooleem maanaam da ciy boole mbugal mu tara tara tara tara gis nga beneen yoon du génn réew ma xam nga saa yu ne ëpp mu daw waaye beneen yoon comme am na confiance jàpp na ne rek toj nañ oto Ousmane Sonko jàpp nañ ko yóbbu këram far force day jàpp ne beneen yoon loolu mën naa bu boobaana nag ko koy xiir mu toog ci réew mi yàlla toroxal ko wallahi lazim kii bu amee mujj rafet wallahi lazim dana ma bett du ko am te yéene wu ma ko ko tamit parce que nit maanaam nit koo xam ne déedéet waaye ku soxor kenn mënu koo ñaanal jéggal man de wax dëgg yàlla ma ko ko ñaanal xanaa mu dee bu dee woon daal moom ma ñaan ko yërmande yàlla ndax jullit la waaye wallaay naa si feeg mi ngi dund moom du ma ñaan ci moom genn ñaan gu baax parce que nit ko nit koo xam ku doy waar la ku soxor koo xam ne yéenewul kenn dara kooku euh, kii bu fi bu fi yàgg xam nga maa ngi dégg benn waaye naan moom daf ne woon ndax ñi danaa leen jox liggéey waaye liggéey ba mu leen digoon mënu koo am léegi li mu ko faje mooy tabax ay kaso di leen ca dugal bu ko defee nit ñi buñ toogee toog gisatuñ ndaw ñi bari ñu naan ah ndaw ñi kar am nañ liggéey fekk ña ngi ca kaso ba hmm. loolu mooy yéene maanaam yéene yi lu parce que bu leen yéene woon lu baax alal jii muy jël di ko jënd ay ngànnaay alal jii muy jël di ko jox ay ministre ñu koy fooye xam nga dem na fële euh, benn dëkk naan di wax ministre bi naan ko école bu ñu tabax juróom-ñetti at wala lycée ba tey mënagut a àgg mais loolu moo leen ko jàngal bu leen joxe xaalis si dañ ciy fas yéeni soxla parce que moo leen ko jàngal moo ne am naa nangam am naa huit milliards te kenn jox kenn joxagu ko réew waaw léegi ki ne am naa juróom juróom-ñetti milliards te joxaguñ la am réew buñ la joxem réew xanaa booy génn mille am moo leen ko jàngal kon ku ci jox dara boo ko sàccee itam du mujj fenn mënu laa tëj di def dara moo tax gis nga ministre yi lu leen neex def waaye du mujj fen ndax moo leen wan yoon wi kon yaakaar naa ne président Ousmane Sonko moom moo tax sax sénégalais yi nekkuñu ay jaam parce que ay jaam lañ leen bëggoon a def hmm. bi mu ñëwee daa fekk ña ko waroon a mën a kontor mu jël leen taf ci boppam neexal leen jox leen ay privilèges hmm. ñeneen ñi nga xam ne ñi ci des la bokk ci beneen côté bu dee lu mel ne kilifa yi mu xool ñam te mën a jënd jënd leen ñi nga xam ne mënu leen a jënd mu teg ay nit ca seen wet bu ko defee ñu koy nëbbu xabaar yi war a mën a am waaye na xabaar nag kilifa dañ ko war a xam de parce que yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ku yàlla bind te teew da xam information yi xew information yi day xew yépp la daan xam di xam naka lañ war a tege stratégie pour mën a génn ci mbir yi jàpp ne kilifa yi fi nekk ne informé wu ñëw comme ni mu waree waaw xam nga gis nga euh, maanaam gis nga senegal day dëkk boo xam ne dafa naqaree waxe waaye man nag lépp lu ma bëgg a wax dama koy wax te kenn du ma ci baara ndax man dëgg laa àndal te dëgg yàllaa ko moom waaye gis nga ci kilifa yi ci baree bari bu fekkente ne dañ ne ñoom duñ seetaan télé bu fekkente ne dañ ne ñoom du duñ yor téléphone waaw léegi bu war nañoo mën a jël ay nit yu jub yu am xam-xam te ragal yàlla ñu teg leen seen wet lii xew maanaam daa war am ñoo xam ne information doo nga la ñu gëstu fi réew mi toll lii xew ci réew mi rek lañ war di gëstu luñ ci xam wax ko maanaam président ni mu amee information lu xew ci réew mi ñu wax ko ko noonu la kilifa yi war a am information boo xam ne lu xew ci réew mi ñu xam ko loolu dafa war a mën a am parce que itam diine ji balaa mën a taxaw jàmm day am waaye bu fekkente ne jàmm amul ni nga bëgg a pratiquer l'islam doo ko man parce que yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu fi nekk daanañ xeex sax di julli dañ daan dañ daan julli sax nekk ci biirub guerre ñenn ñi di julli ñenn ñi taxaw ji leen protéger waaye bu l'islam demee ba taxaw képp koo xam ne ñëw nga ci seen gannaaw ba julli génn julli am nañ ci tuyaaba ndax bu woon a ñooma l'islam doo ko mën a pratiquer kon Sénégal fii mu toll képp koo xam ne jóg nga ngir xeex injustice bii fi am ngir fas yéene dëgg taxaw su boobaa boo fi jógee itam ndaw ñi bu ñëwaatee fekk fi jàmm lépp lu def ci seen jàmm joojee da nga ca am tuyaaba ndax yaa tax ñu mën koo am. ndax bu fekkente ne ñun dañoo ñëw yaafus bàyyi réew mi ñu koy salfaañee ko caxat caxatee. ëllëgati si biir bu ñeneen ñëwee di nekk ci jàmm kon ñun am nañ ci part de responsabilité. moo tax képp koo xam ne kilifa nga bul ragal péete maanaam dëgg la yàlla àndal dëgg gi fu mu nekk wax ko dëgg gi fu mu nekk wax ko waaye am na ñu naan ay Ousmane Sonko nitu violence nangam dañoo waxul dëgg gi dëgg gi mooy lan mooy kii tooñ jàppal ci loxoom ne ko yaay tooñ loola mooy dëgg ku ko mën a wax wax nga dëgg ku ko waxul waxoo dëgg waaye loolu mooy li am maanam kii tooñ jàppal ci loxoom ne ko bàyyil tooñ ndax tooñ baaxul suñ ko defoon rek parce que itam kilifa bu fekkente ne yow da ngay wax ci suuf mm-hmm. te li ngay wax am na ñoo xam ne kat boo waxee ba pare ñu mën a mm-hmm. jël wax transformé ko def ko leneen kon da ngay fexe ba boo waxee dégguñu la nga waxaat dégguñu la waxal ci penc mi ba ñëpp xam ne kat sa jaan wàcc na ñu xam ne yow seetaanoo waaye wax nga ndax ku noppi kat da sot de mbir moom ku ca noppi rek da ngaa sot ah, ah d'accord nga ci ànd nga ci. jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye su dañ lay bàyyi rek nga joxe sa kàddu jeexalaale émission bi. waaw kay jërëjëf bu ko defee rek xam naa li ñuy tàggatoo mooy. meeting bi nga xam ne organisé dañ ko Mbàkke le 24 bii di ñëw na Sénégalais yëpp génn. wan ki fi nekk na ko kat. mais am na ñuy wax ne le 24 du date bu baax tamit parce que euh, ak euh, bi nga xam ne sant nañ ko Baye Fall est-ce que dàq ko gënul aussi. liggéeyu. liggéey bi ñu sant Baye Fall ci dëkk bi ci marché beeg yenn. waaw loolu moom gars yi def diabolisation ñoo koy def rek. Hmm. ñoo koy wax waaye Baye Fall yi jute wu ñëw euh, ñiy politique dara jute wu ñëw dara ñoom kenn mosu leen a dégg sax ci ay affaire politique ñoom liggéey lañ leen xamee liggéey la ñuy def. Hmm. kon ñi nga xam ne ay naa naafeq lañu te nekk ci biir réew mi ñoom rek ñooy diaboliser naan ay Baay Faal yaa ngi liggéey mu di fa dem ak bëggoon ñu taal fa ay kii ñoom ay naafiq lañu. gis nga naafiq nag moo yàq am réew. xam nga li may faral di wax naan sëñ Moussa Ka nee na yowmal xiyaam bu dul ko rek naafiq yi rambaaje yowmal xiyaam kenn du fa dem bay naaje. kon naafiq moom moo sonal ñëpp. xam nga Makka bi ñuy nekk Makkatal Mukarrama booba suñ borom mës sa wàcce benn aaye di wax ci jullit ñi dara wala muy wax naafiq yi. Hmm. booba yaa ayyuhan naas rek lay wax yéen nit ñi di leen woo ci tawxiid biñ demee ba nga xam ne nit ñi tàmbali nañoo ñoo am tawxiid ba dëgër booba nag la naan yaa ayyuha lazina amano yéen ñi gëm yàlla léegi teggi na na teggi na yéefari tegee leen à côté daan na nag yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm yàlla kon mi ngi wax ak ñi gëm yàlla léegi waaye ba ñu nekk màkka booba nit ñi amagul imaan kon booba yéen nit ñi rek lay mën a wax mm-hmm. nit ñi bañ demee ba am imaan mu xaajale ñaari kuréel yi beneen bi ci diggante bi nag moo solool ñëpp nag mm. beneen bi mooy lan mooy naafiq ndax suñ borom bi mu ñëwee ci alxuraan bi mu ubbee suutul baqara dafa jël juróomi aaya jagleel ko ñi gëm jël yeneen i aaya jagleel ko yéefar yi waaye naafiq yi moom daa jël temps ci niñ ko mën a waxee naafiq yi dafa jël temps di wax naafiq yi nangam naafiq yi nangam bu njariñ maanaam lu leen arrangé ci diine ji bu ñëwee ñu daal koy jëfee waaye lu leen arrangé bu ñëwee ñu daal di tàmbalee taxaw euh, kon yooyu lu mat di bàyyi xel la nga xam ne kon naafiq moom mooy yàq am réew boo gisee Sénégal di ko yàq mooy naafiq yi la ñuy teg ci plateau télé yi ñoom ñoo ci bari lool dañuy gis dëgg ba pare di ko di ko teg jël ay nit xam nga nguur gi comme am na ay moyens jël télé yi jënd leen Youssou Ndour ci boppam 2011 moog 2023 bii tey ñoo yem hmm. ndax 2011 fii la taxaw nguur gu fi nekkoon lu ne ŋàññi ne ko ko lu ne wax na ko ko tey mi ngi ne nemm ak ñeneen ak ñeneen Abdou Latif Coulibaly ñoom ñëpp 2011 lu ne yekk nañ ko Ablaye Wade hmm. livre sax daanañ ko bind ci Ablaye Wade di wax ci moom wax yu ñaaw Souleymane nekk ca réewi tubaab ya di hmm. saaga Ablaye Wade di ne ma wax leen ña nga déggoon 2011 ñëpp ñuy wax te tey 2023 nga xam ne moog 2011 ñoo tolloo ab taxawaay te déggoo leen ñu wax xamal na ñoom ñëpp ay naafiq lañu naafiq nag am réew parce que am nañ ay moyens ñu ngi leen di fay ñu dem toog ci télé yi di wax wax wax ñaaw ndaw ñi dégg nga Pa Ngol moom itam nga xam ne dem na ba retraité euh, waroon a toog mën a jaamu yàlla yor kurusam dégg ko wax yi muy wax wax yu garaaw Ahmed Suzanne Camara ñooñu nga xam ne ay posan lañ ci am réew ñooñu ñooñu nag ñoo yàq réew mi parce que ñi nga xam ne te gis nga nag loolu li ko waral mooy nguur gi moo am benn nit bu mu bañ da koo bañ ba du tudd turam man mosumaa dégg ma tudd turam bañ gum bañ Ousmane ko soxare ko moo tax jarale ko génnee ay milliards di ci fay ay nit ngir ñu toog ci plateau télé yi di ko xas waaye nag dëgg moom lu mu yàgg-yàgg mooy féete ko alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in ala fa saaixun wa saafilu loolu Seex Ahmadu Bamba wax gis nga mm, mm, maanaam dëgg lu mu yàgg-yàgg-yàgg-yàgg mooy féete kaw mm. doonte sax nar maanaam ay fen dem nañu ba fabriqué ko ba mu mel na lu jëm kaw nee na lu mu yàgg-yàgg day nërmeelu ku ko weddi nga xool mbirum aji saar ba muy doog a jóg dañ koo duufaloon taaral ko kenn ku ne génn ci télé yi di wax waaye gis nga bi biñ demee ba ca fin ba gis nga kenn ku ne xam nga ne dëgg gi fii la féete ay audio génn ñuy tudd ay tur di leen taxé ay doom haram wax ju ñaaw ju ne ñu wax leen ko te mënuñ ca dara nag dara mënuñ ko ci lu ko waral mooy dañ doon défendre aw fen fi ne nii gis nga mbir mii itam suñu réew mii dëggay mujj te dëgg gi mooy ñi nga xam ne ñoo bëgg jël seenum réew ñoo koy jëlaat téye ko ci seen loxo ndax loola mooy dëgg jël sam réew di ko jébbal ay tubaab loolu ndam te kenn wuru koo wuru kenn wuru ci ànd moo tax ma ne la ñi doon wax 2011 nga dégg leen 2023 te déggoo ci kenn wax xamal ne ñoo ñëpp ay naafiq lañ bu ko defee kon du si jub la du ci dëgg man la in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi euh, di sant bu baax di gërëm euh, ñi ngi amoon oustaz Abdoul Khadim Sarr euh, ñëw doon waxtaan ak moom tey di leen di ko sant di ko gërëm ci disponibilité am tamit di leen gërëm yéen tamit yéen ñi ñu doon topp di joxe dig daje beneen yoon ci beneen waxtaan incha